ngay sol nii takk ngay soutien. takk naa ay soutien kay bu baax sax. waaw waaw de agresseur yi <laughs> léegi këfatunu dañuy fekk koo xam tabaar faal dafa tëggal li <laughs> nga defe dañuy sàcc ñu yow sa yi sa yasa waaw agresseur bu ci fekk nga ci sama wenn jabar gi nga ci ah ah. ah. saa yow naa nga fekk yàlla yi toog ñu jiitu la nga ñëw di demander yow pour lenn yow yaay kan. comme ñu da ngaa dégg good morning. léegi nag man damaa mer. nuyoo ma 15 ganaar taga feebar bi li tax moom mu garaaw xam nga anofel anofel mooy ñëw pikiir mbaam anofel mooy yóbbu góor wala bu jigéen. bu dee réew ngay jaay ak yàqu man maa la gën a yàqu ñaari junni yoon ndax man damaa yàqu ba bu ma doon màgg kenn mënu maa njambaat ndax nëpp nga ne yow mbaar mi yaa ko créé yow yaa mën a fenn. parce que duul yi nga may wax. sa doom dinañ ko tëj ndax ay duul. waaw bu yeboo sa doom dinañ ko tëj ndax ay duul. sa doom dinañ ko tëj ndax ay duul. sa doom dinañ ko tëj ñun a koy gunge ka def. sa doom dinañ ko tëj ay duul. dama dama nga mel ni. dama ba ma amoon lu def ko yow ma am lox rek. ba yàlla boobu. xaale ma xaal la. fii mooy Kéemaan Vision